mboolem me man Alaaji Malick Samba chef du village bu Kounoune eh, maa bëgg sànni kàddu yu gàtt rek maa ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen sant di leen balu ak itam eh, di jiital tam si nuyoo bi sama mag ji nekk fii muy Alaaji Góor Jaal fa chef du village bu Kër Njaay Loo ndax moom naka jekka ba nu commencé comité bi ba tey ba léegi fu mu masaa demit fu nu masaa demit kilifa fu nu masaa demit parce que daawul wax man la doon bàyyi may wax di ñaanal itam yàgg Jóob itam muy chef du village bu Kër Daouda Sarr moom it gaynde la woon si affaire bi te ñu ngi leen di nuyu di leen sant mbir mi nag li ko tax a jóg moo di kunuun Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr kunuun Ngalab cité Mbaba Guissé ak cité yi nu wër yëpp bari na trop ñooy ñaan sunu commune commune la ñuy soxla coow li bëri na nag wax yi bëri na lool ah am na tam ñoo xam ne xëy na ñoom ñooy toppa Macky Sall di ko nax ñuy xamal Macky Sall nag ne am na wax yu ñu koy wax dañu koy nax dañu koy nax nun dëkk yii sunu commune la ñu bëgg te boo xoolee li di mbooloo sunu commune la bëgg li di mbooloo boo ko xoolee كان خامل نيمو تولو في مو نيك اي ماكي سال نيغ لاي نيان ياو مي خامني ياي بريزيدان دي لا ريبليك نوغي لاي نيان سونو كومين نون نيانو نيو كومين كومين مينيستر نيانو نيوكو ديبوتي نيانو نيوكو مير نيانو نيوكو كين ياو لا نيو نيان سونو كومين غا جوخ نوكو نين نوكو ورا جوخي اي دي لا دينكو تيم موي خلا ييك ماغ ييك امام ييك chef du lage ñépp ñëpp ànd ñu lu cooli bëri bëri ak lu ñu la mën a lu ñu la mën a wax li ñu lay wax lu si bëri bëri ay fóole rek dara amu ci. dara du amu si boo xoolee mbooloo yi yëngatu toujours temps yii yëpp di nga war xam ne loolu ñu lay wax dara amu ci et eh, monsieur Macky maa ngi dellu rappeler toujours di la ñaan comme yaay su ndey yaay baay yaay lépp nga jox nu sunu commune ndax nun kunun kër Ndiaye Lo kër Daouda Sarr fii yëpp nooy digue milieu euh, réseau de Dakar noy digue digg réseau de Dakar dëkk yëpp xam moy mooy dëkki bo fi déggatam amna commune sauf Kounoune kon nag léegi taxaw nañu juroomi dëkk yi pour nga jox ñu suñu commune nga jox ñu suñu commune nga jox ñu suñu commune. te gis nañ ne am suñu commune bop rek moñu ñu doy pour ñu mën satisfaire besoin population bi te naka nak président de la république dañ lay interpeller né la liñ la doon wax ay naxe la ministre bi waxul la li nga xamné mom la askan bi bëgg ndax découpage bi daf ka def té consulté wul ben chef de village consulté wul ben kilifa consulté wul ben personne ressource chef de village yaangi ni ñom ñoom ñoo ëmb collectif bi ñom ñoy ndayu ak bàyyi collectif communalisation bi donc nak bu fekkente ni dañ ne la plus de 90 and nañ si comité bi si communalisation rattachement à Sangalkam lolu ay naxe la te dañ lay ñaan yaay yaay yaay papa yo président Macky Sall ñoo ngi dellu di lay ñaan di ko tëjee foofu nga commune ndax ko am ko commune. Au nom des cinq chefs de village et des cités 32 cités environnantes euh, je vous salue et je vous remercie de la mobilisation en commençant par les journalistes nos amis de la presse d'avoir accepté de, de, de sacrifier un peu de votre temps pour venir relayer nos préoccupations les préoccupations de près de 35 000 habitants qui aujourd'hui se trouvent dans notre localité. En vérité, nous sommes là pour montrer aux autorités, au premier chef, le président de la République, que plus de Bambilor, jamais de Sangalkam. Ça veut dire clairement que nous voulons notre propre commune. Nous avons initié le projet depuis 2013. Tout a été fait. Nous avons un argumentaire béton. Nous avons véritablement indiqué que notre, notre localité, notre terroir aujourd'hui composé de 5 villages et de 32 cités, euh, vraiment à toutes les potentialités humaines, économiques, pour vraiment devenir une commune de plein exercice. De l'entité Kounoun Kerndjaïlo, qui comprend cinq villages traditionnels, une trentaine de cités et 35 000 habitants. Je dis que ici, c'est le peuple qui, à l'unisson, a déchiré le nouveau projet de redécoupage forcé que la tutelle a voulu nous imposer. Cette marche est la preuve que plus de 90% des populations de la localité sont contre ce projet et marquent encore une fois leur adhésion massive au projet de communalisation de Kouroun Kerndjaïlo. Et, nous interpellons le président de la République, M. Macky Il est de facto notre interlocuteur direct. Les allégations de la tutelle ces contre-vérités ont été déconstruites par cette marche qui a amarré l'ensemble des populations de la localité. Et le président Macky Sall, récemment, en Conseil des ministres, a dit à haute et intelligible voix qu'il va prendre en compte les préoccupations des populations. Voilà le peuple, voilà la population, voilà la volonté populaire. Nous disons non à ce découpage de salons nous disons non à ce découpage imposé. Plus de Mabilor, jamais de Sangalkam. Vive la commune de Koumou Kerdiaï. Nous avons fi li ko waral mooy boobu ba léegi la ñu depuis 2013 maanaam samp commune Koungheul Kër Ndiaye Lo mooy suñu mébét tey mooy suñu mébét ëllëg doxu ñaxtu bi ñu dox tey dafay wane askan wépp ànd nañ te kilifa ga sa kaw ministre bi nga xamne moy mooy gérer gox-goxaan yi wax ne ne ni ñi na si doxu ñaxtu tay bi wane na ne lolu du dëgg taxawul waxu waxu waxu ku daanu saret la population kunun kër njaaylu ak cité mbaba gise ak kunun galap ak fanweeri cité yi fi ne boko tanké mu nekk fanweeri junni ak juroom ak lu ko ëpp d'accord ñu si projet de découpage bi ñu bëgg imposer lañu nako kay moy lañu ñu 2013 ba légui mom lañu bëgg mu né moy commune kunun Kër Ndiaye Lo bëggatuñu bokk mbamilor té bëgguñu ku ñu taf kam comme liko waji bëggé ñuy di ñaax ak di o, kilifa gi président Macky Sall mo jaboté ñëpp ñi ñëpp jabotañ leen mom mo tok conseil remise bi passé l'arba né man lepp lu may def damay déglu askan wi askan waangi ni dëgg ñii ñoo soxla seen commune mat nañ fan fanweeri junni ak juróom maanaam téeméer bu ne ñeent fukk yi ak juróom ak lu ko ëpp d'accord nañ pour commune ko Ndiaye Lo leneen lu ñu wax si ab télé nag loolu safaan la mooy lii mooy suñu bëgg-bëgg plus de Bambilor jamais de Sangal Kam Ibrahima Ndoye général et porte-parole du collectif pour la communalisation de commune Kër Ndiaye Lo